du xam nga fi mu nekk nii moom coow li métti na waaye nag lamb coow yàqu ko do yow coow li bëri na nii jamaykee mi luy problème ak yow ak wulli mais wulli lu waaye wulli wulli wulli mi da xoolal <laughs> lii. booy dama lay xoolal booy bu ma tiim. maa la tiim damay Lamine kaay Lamine kaay jàpp. dama lay Lamine non Lamine non. booy bu leen. yaa ma sosal non wuyu ma. yaa ma sosal lan la wax. yaa ma sosal lu mu la wax lu mu la sosal. maa am lan damay kay gëndoon kii biig. da ngeen doon doxaan da ngeen doon lan. doxaan waaw mais yow itam lu. masina ma koy jox kii ma koy rëy nga naan la kii xamu sa li ma. non déedéet déedéet non garaawut non garaawut. kii biig ma la mun a. dama lay tiim booy Lamine da. bul ma tiim. wala nga dama lay tiim. kii tiim naa ko ba ka ba faaw tiim naa la mooy de. Lamine eh, eh. eh Lamine eh, dafa dangereux yow itam. ni muy gàmbee ni muy gàmbee tax tax polisu Gambie amul caaxaan na comme bu gañ rëy naa ko bu yàgg kii bu ndemee Dakar ma ko kii bu ndemee Dakar ma ko de. bu ma maam jabar mu naan ma damay waaye kii yóbbu ma ñun ñu gàmb tax de bu doon bu doon c'est que fii wóorul am nañu dox seen police fii bu ñu te kenn laa xamut. nag ku am jabar ngaan ko da ngay doxaan. non day doxaan. waaw mais yow itam. kee gis dama leen gis démb. ñuy doxaan seen hôtel yi seen sambur yi gis naa ay jéeg yu fa doon dugg. ay jamay kee gis naa muy gunge kenn borom taari kon kay wulli meesu ko loolu bu am nag daan wulliru xoolal nan xam li ci kanam daal raw li bët maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp hôtel bi ñu nekk vraiment di leen remercier Xadijatu Sow Xadijatu Sow ku baax la lu tax ñu jox la café jox ko yàpp moom non joxuñu ma yàpp man dama teel a yow ñu jox dama xaw a naaje yeew jox mu ma ndékki ndékki woon naa ba pare dama ndékki ba pare ndékkiwaat njëkk naa ndékki et puis bi ñu ngi koy gërëm di ko santan ah, Xadijatu Saw ku baax la gis nañ hôtelam bi tubaarikàlla macha allah et puis kaw ci kanam daal gis nañ li gis nañ hôtel bi maa ngi gërëm ñëpp di gërëm suma yaay ji Adja Gass nekk ci Angleterre waaw vraiment sama yaay la sama xarit la vraiment woo na ma boole ay nitam yu nekk fii Gambie xam nga loolu dafa neex dafa sedd xol vraiment maa ngi koy gërëm di ko sant waaw ndax kontaan naa trop mais wooyu ma sama problème mooy wulli dafa wax lu garaaw wulli nee na say waa kër sax yow même sa soxna sax ci combat bi moom la faral yaa ngi dégg te ba pare da ngaa yëpp Modou Lo ne na te dañ ko bàyyi te moo la koy bàyyiloo. non xam nga su ne sama soxna moom la faral sama waa kër moom la faral wax bu yàqu la ndax euh, bu njëkk ba bu njëkk ba comprendre ma su waxee ni diw man la faral wax na ko mu saa Fall mu saa Fall sama doomu nday après dama comprendre ne ni muy joobee gis naa ko daf may bëgg a jaxaseeg adduna bi bëgg ma jaxaseeg samay nit bëgg ma jaxaseeg waa Géejawaay moo tax su jógee diw roon la man la faral roon suma entraîneur la suma doomu nday la. su ah, nee na ndaw taloo ko ci ngénteem li de wulee ko wax. xamul moom tey man ngént la ba falaa waroon teew ne fi la waaye euh, jamaïcain moo ma woo topp ma expliqué ma naru ma woon ñëw. Ah, lu tax doo ñëw naru xam dama nekk dama am lu ma signé ak moom am lu ma wax ak moo waral ma bàyyi lépp ñëw noonu la fa demee kon nag Rhone suma doomu ndey la mënu ma jaxaseeg Rhone comprendre nga. waaw doo ko doon yónnee ndawtal rek. non loolu bu la ma seq Rhone du ko xam. la ma seq moom du ko xam ndax Rhone suma entraîneur la. ma kii lu yoonam ci combat bi ba nga koy accusé ne da lay sot jamaïcain. jamaïcain c'est que saytaane la affaire. tëgg rek yëngu ci wala ci tëgg rek ndax gis naa ne mii def ak wulli yëpp maa ngi koy teg seen bët waaye man man maa mag loolu man dépassé naa yooyu c'est que dama koy xamal ba waa adduna bi xam waaye man dépassé naa yooyu man mënuñu maa yuus suma maayin mënuñu maa ndax Modou Lo doomu nday la léegi jam waaw jamaykee léegi nee na wulli doomu nday Modou Lo nee euh, jamay euh, Modou Lo wulli lay àndal waaye waaye na ànd ak moom ñi muy tudd ñi ànd ak Modou Lo amul problème nan ànd ak wulli amul problème mën ngaa nangu roi des arènes ak nga nangu ko neex ku la ko wax ne nanguwuma roi des arènes wax lu ko wax naa ko waxati ko nee Lo mérito na ndax da ko dafa dafa rampe petit combat ba deuxième combat ba grand combat kon nag mérito na roi des arènes mais lu tax wuli ni di nga ko bàyyi par force wala dina la duma parce que da nga koo sonal. Modou Lo Modou Lo man lan laa ko sonalee Modou Lo Modou Lo di sama boy. wuli na da nga naan Modou la Modou Lo sa d'accord su bu amee combat su ma rakk la. tellement est-ce amee combat am naa droit wax man Guédiawaye laa dëkk man maay couleur yu Guédiawaye couleur Guédiawaye laay am naa droit wax Balla Gaye c'est normal ku mu nag ah. rek Sénégal jëm kanam ah. Guédiawaye daan naa am moom laay tuddoo Guédiawaye ca kaw ca kanam ñu ci des man maa wax am naa plein droit. waaw mais lu tax nga bëgg man am ku laa am Guédiawaye laay couleur Guédiawaye laay défendre. léegi wax ay saytaan dëkku ne nga jamay kee du ma nga ko wax. jamay kee laa jamay kee fu la jamay kee fa la laal. Ah. waaw bul laal. bu non bu ma laal saytaane la. waaw mais nit ki tëgg la te du la laal. bu ma laal jox xaalis. waaw su ma joxee xaalis nag. non est ce que nga ko sarbet non non sequma ko ak moom. mais Lamine ñu toog ñu mun a toog ñu ngi seen problème. nag jamaykee du ñooy ànd guddeeg bëccëg ay saytaane la. maa dañ lay sot ndax léeg-léeg euh, jamaykee daf may woo du ko jël léegi Lamine lay wax Lamine woo ma ndax xam na ne jamaykee la man damay liggéey rek xaalis laa seq ak ñoom. su ma nee su leen neexoon ñu bëree biir këram sax na ma fay. li ma si kër Jamaye gi barki Cheikh Ahmadou Bamba. ah wuli de dóor mu daanu la wax. Balla Gaye 2 ñu ragaluñu loolu. ñu ragaluñu loolu. ragalu ngeen lan. barki lu mbakke Mbacké ragaluñu loolu man maay magu bala gay 2. ak Lac de Guiers 2. ak Lac de Guiers ak Boy Niang 2 Boy Niang 2 at guy gi ak Pape Mbaye ak Pape euh, Sa Thiès mi muy wax ñoom ñëpp samay rakk la fii sa ba ñoom ñëpp sumay rakk lan Sa Thiès léegi naa wulli la faral laa dégg dama koo dégg de waxin la rek dégg-dégg la la nee na sama dàll mu nga këram lu bëgg lu raw dàll ku ko mën a lijjanti ba jox ko na ko lijjanti jox ko man ragalu ma loolu man ragalu ma loolu man de daa dégg naa Sa Thiès jox na ko lii gàllaaj man loolu su ma soo ko yow wax ay ree daf may jàpp kooku su rakk la. dama koo dégg. kooku kooku du sigg ba xool moom. kooku Lamine nee na moo ko fekkee de. Lamine seytaane la. ndax euh, euh, euh, Sa koo xam ni vraiment man xam naa cër ba mu ma jox xam naa fa ma teg man ñoom ñëpp xam naa fa bu keroog daf na ko guy gi dafa maa woo téléphone barki Serigne Fallou Mbacke affaire bi metti ko ndax nee na li ko li ko li ko li li li wax wulli nee na guy gi da ko woo téléphone guy gi woo woo ma téléphone. ne ma grand billaahi wallaahi kii daf ñoo bëgg a jaxase te man sama manga sunu manga géejaway man loolu duma ko def grand jamais de la vie. Aziz Ndiaye moom nee na moom la àndal bu soobee yàlla Tiwaawoon lañ lay xaar. ko neex man. lañ lay def lañ lay def. chaque année ma dem gàmm ak Tiwaawoon daaw maa nga fa woon man yii muy wax yëpp man mënu maa jaxase kenn man Aziz woo na ma fi ndax ne ma yow laa àndal wala ma neutre ndax bëgguma sunu der di yàqu daru géejaway di yàqu ñun géejaway la ñu dëkk couleur géejaway la Aziz Ndiaye dafa bëgg géejaway di défendre couleur géejaway bëgg deretu géejawaay muy Balla Gaye doo ñoom la dëgg tout ndax géejawaay moom la bëgg géejawaay la bëgg géejawaay la bëgg ah, ah, sama doomu nday jéey seen waxi nopp moom day ñëw si jabaru jéey jabaru jéey di ko jox ay teraanga wuli déedéet waay barki Serigne Fallou Mbacké soo déggee ma naan Kumba Saadi Kumba Saadi. est a tax. non non bokkul ak Jéy. mais yow nee na dëkkoo Bawol wuli de loolu la. Oh, yow su ma dëkkee Bawol xam ngi fay dem. si. kañ nga fa gëj bu yàggul dara gëj na. kañ kañ. Ah, fan yi rek. yan kañ ay 15 jours rek. ma. sama turandoo ma nga fa instant ma sama kër sama vacances sama ma. ko. man nga sama kër ma bàyyi te dafa vacance. kon moom li mu wax moom moom bawal wax rek mënut a ba. et puis nee na tafaatin nga. reefan nga muy wax sama eh, fa samay rakka fa. jub jub seen maa gërëm di ko sant at ay magam yu ñu nekk Colobane ñoom koy sant. yëg naa ko tamit mu ne Abdou Diouf yore na ko xaalis bu bëri. loolu wóor dara man man maa lu mu defandoo sama su ko neexee am pool na ko yónnee ku mu neex na ko yónnee loolu loolu man maay magu Balla Gaye 2 man ragaluma loolu. déedwaay barki Cheikh Ahmadou Bamba man ragaluma loolu man maay. liiru man maay magu Balla Gaye 2 ma ragaluma loolu. nee na ki dàq lëmbal yàlla na da yal nañ ko daan. waaw baax na na wax ak lëmbalkat yi. man damay dagañ man ma damay dagañ. ah moom def lëmbalkat la la jiiñ. waaw waaw su ko neexee dafa yabaate te c'est que day am ñu koy suuxlu di ko wax ci suuf rek. la comme ñaar ambiance man na no stress lay dund no stress. no stress no stress. no stress lay dund man. stress liiru lu ma loolu. man nañ luy gën a jaan ak paa jaan. man dong daara laa damaa jaat daara dama tarbiyu. man nga alxuraan kon. man da lu ma lool damaa tarbiyu. Isa Dia Nasrullahi noonu mu koy taree. déglu ma damaa tarbiyu Babacar. may ma benn aaya alxuraan. Babacar Babacar. non benn aaya rek laa bëggoon non. waa déglu ma dama lay expliqué waa dama lay. da ngaa jàng daara kay xanaa nag war nga ma waa waaw doo ma may dara nag doo waaw sa sànni waaw sa sànni. waaw da nga may déglu ah, sëñ Xaadim Kanji. ma sëñ Xaadim Kanji maa ngi koy gërëm. Xaadim Kanji ñu ngi koy ziar. sama sëriñ la sama xarit la ndax papam doo ñu benn aay alxuraan rek. waaw déglu ma papam yàlla na ko yàlla xaaree àjjana. yàlla lu mu wax ci saytaane ci alxuraan. saytaane baaxul su dee safar la jëm. maanaam aaya balaa bëgg a dégg. waaw may ma tuut dama lay gërëm dama ne la sëñ Xaadim Kandji maa ngi koy gërëm di ko sant papam sëñ Mor Kandji yàlla na ko yàlla xaare mais Lamine mi jox amin amin ca Gede. amiin ndax kooku moo ma yoroon man daara ba may tuut tànk. Euh, wàcc nga kaamil bi. déglu ma rek Babacar. wàcc nga ka wàcc nga kaamil xam nga yow sama waay nga bugguma laa def saytaane waaye soo moytu naa ko naa la boo saytaane yi. waaw nu ma defee saytaane non da nga la jàng alxuraan daara nga nekkoon man ndax wàcc nga alxuraan. su may wax man may wax da nga may déglu. su may wax naa da nga may déglu. wàccoo waaw doo ma déglu su may wax da nga may déglu. waaw kon man Babacar bu ma nekkee ne xale damaa lijoon ba nekkee daara kon xam naa loolu tax wàccu alxuraan. maire ba ndeysaan euh, maire na maa ngi koy gërëm di ko sant. Euh, te di ko jéggul di ko baal àq. lu ma lekk gu mu sa teg rek ndeysaan ma di ko yor di ko sàcc ba ma gën a nekk xale di ko sàcc di ko lekk. léegi tax xamoo lu bëri ca daara ja. xaw ma ci lu dara ci daara maa ngi koy gërëm di ko sant. man kay dama la ne xam nga saaru alxuraan moom yaakaar naa. sëñ Mor Kanji yàlla na ko yaar xaare àjjana. sëñ nga ci Espagne ma nga Espagne Espagne maa koy gërëm di gërëm euh, waa diaspora bi. Euh, euh, ñi ngay tudd ñëpp wulli na la nangu na leen. non non kaddu Modou Modou dafa am benn groupe boo xam ne dañoo nekk kaddu Modou boo nekk ay yaaram nekk ay taalibe nekk ca États-Unis di gërëm ci Ibakara Ibakara ñoom ñëpp maa leen gërëm waa États-Unis euh, groupe Modou Modou di euh, gërëm euh, diaspora bi kii. dégg naa am nga visa. kii nu mu tudd. Leeru. dégg naa da nga bokk ci groupe Modou Modou ndax am nga visa dégg na. Ah, oui ma Adja Gass. da nga am visa maa ngi koy gërëm di ko sant sama yaay ji Adja Gass borom. Adja Gass ñu ngi koy nuyu da nga am visa. Gambie gii la dëkk. da am visa. wuy man wuy ma man maa mag lii man maa mag lii. non am na yoo xam ne su non ah, ah, c'est que xam nga. Ah, waa waa dafa dama lay expliqué. yi wax xaalis. Euh, fekku leen ma suba fee sama kaamil di jàng suba am na yoo xam ne su ma ko wax dafay mel ni ku waaye di lay waxal wala xale bu ndaw man kilifa laa. pour nga wan ko ne man naa. xam ne kilifa laa am nekk di ko def man kilifa laa am na dafay mel ni man damaa waaye di wala muy wax xale bu ndaw. ah sama doomu nday jéey seen am na lu may wax chaque jour waaye am na lu muy dugal sama nopp chaque jour waaye non non am na yoo xam ne jaru ko man kilifa laa jéey wax na ma ko keneen ak keneen wax na ko man kilifa laa man lu may def dama ko war a xam. kon Lamine mënu laa perturber. non ma ko mënu ko ndax am na yoo xam su ma fi nekkee xam nga di ko def yooyu dafay mel ni dafay mel ni man dama woyee di wala jàng man may kilifa gu toll ma yor sama jabar yor samay doom ah. mais kaddu gi gi am na wax ju garaaw jum la. man may jiite Tabaski sama xar di ko rey ah war a téye sama ginaar ah, di ah, di rey ginaar ah. kaddu gi de kaddu gi waaw kaddu gi lam la wax moom. kooku dafa dof bu ma waxee kaddu gi wóorul kaddu gi dafa dof wóorul. kaddu gi lu ko yaa doon jël kaddu gi lu ko kaddu gi wax kàddu gi ne neen saa day lay rek ak meew. meew wallaay taal gis nga gi xam nga ñun ay ndongo daar la te dañoo am yër nee na sa combat daw rek ngay may ma dañoo am yërmande ci doomu aadama man sax kàddu gi. jëy seen moo tax ma bëre kàdd gi waaye nag moo woon a bëre moom ak Pape Diagne Seras maa ngi koy nuyu di ko ziar sama. mais de la dóor ngay jooy kàdd gi Pape Diagne Seras. waa Daara Jolof ñun dañoo dem Daara te jaar waa jaar daara bëgg ma léegi ñuy wax sama combat léegi ñu ne ma Pape Diagne ne ma jëlal kàddu nga dimbali ko ngir yàlla ndax boroom kër la comprendre nga te waa dimbali ko waa non non non non non man maa ngi sant Pape Diagne ne ma dimbali ko xam nga te yàlla tax te boroom kër la vraiment léegi après ñu avance ah, ñu jël avance bi yàgg Pape Diagne ménager bi téye avance bi di ma woo may la woo oh, bëriwu ma waaye combat ba pare bëriwu ma léegi jéy fekk jéey voyage yi jéey woo ma téléphone ne ma liiru xaalis bi ngay tege combat bi ginnaaw suba la demal jël xaalis bi nga lekk sa xaalis nga dem bëri ji comprendre nga jéy bi ma wooyee expliqué ma loolu ma xam ne comme xaalis bi tege la te tamit damay def te yàlla tax te kii euh, vraiment ñun suñu def yàllaa tax ma daal dem jël xaalis bi ma daal dem ànd ak benn booy at sama doomu nday alam daa ànd ak dund sama doom at euh, alam daa ñu daal dem àjjuma euh, lañ fi jógee bët set di làmb ji di samedi ñu bëri kaddu gi bi ñuy bëri man ak moom kaddu gi kaddu gi bi ñuy bëree man ak moom daara jolof dañoo dem ba daara. léegi kaddu gi man xaw ma dafa mandi xaw ma lu ko dal. ay leeru ay leeru. waaw xaw ma dafa mandi daa diis de kenn du ko jiiñ. nekk fa diir waaw nee na xaw ma lu ko dal waaye bu wax mandi man sàngara la. waaw lu mul xabaas la ko yàlla tudde mooy nday ñaawte fi nga koy bu ko accusé loolu. kaddu gi daal lu ne lu mu ko lu ko waxul rek dañ koo bàyyi. dañ koo xamee buñ ko jiiñ sàng. waxul sàngara baaxul. non dama xaw ma dafa mandi xaw ma la nekk fa di ma ne ko waa kii ba pare xeeñ xun xun xun xun xun. sàngara de su ko jiiñ nit de. damaa rus sax man billahi damaa rus. sàngara amul xabaas la. ñu ne pour ma ñu dimba ma dimbali ko léegi pour koo xam da koy dimbali man lii muy def nii kii est-ce que jar na. mais da laa jooy. loolu gëm la wax xam la dañoo. moom moo ko wax amul c'est pas vrai waxul dëgg. Ah, ni ngeen bëri ci géew bi ni mu demee ci géew bi après ñu génn ci biir saako yi arbu suuf la arbu suuf la ma wàccee sama garde mu daal may dóor mu daal comme maa yëkk ni bombardier bu njëkk ba saraan nga ko. noonu la fa demee nag adala yoxos voilà arbitre la mu dóor ma boobu nan la demee du après yëkkati lañ joxoon victoire waaw léegi bii mu demee noonu nag léegi mu ngi koy dimbali man de xaw ñu koy dimbaleeti waaye bokkatuma ci dootoo jël avance damaa ko est-ce que ko non dof la non non xam lan la da man suñuy def naa dañuy def te yàlla tax tey wuli man ak moom war na ñoo bëri comprendre li moom day dóore. non lu garaawul su ma mënee rey dama rey. man du ma moromam. ma ma laaj la leen. foofu lañuy ñuy jeexale sa palmarès ñaata combat nga bëri ci arène. naa la ko 18 combat euh, euh, bari na. limbal ma ci juróom. Vandam. waaw. Euh, Sulumle. ñaar Ibou booy rëbës non ah non booy ba nu mu tooyati booy ba dëkk Diourbel fàtte naa tur ba. non surum la wax naa ko booy bu dëkk Diop ne dama la génne làmb ji. comprendre nga advance ma xamal la benn affaire. mais ñetti victoire nga fi lim nga de. de euh, kii nu mu tudd ndeysaan euh, mbër ma waaye booy booy booy waaye fàtte naa tur ba non naaru sokaas ndar la nu bëre. leerul comme non non daanu ma. naaru moom da laa daan daan. daanu ma dafa leerul daaru ma. waaw mais sa douze victoire yooyu yow mënoo ci lim sa juróomi victoire yu man. yaa ñi ma yàlla non c'est non dama lay laaj. waaw non Babacar dafa daan dama lay expliquer. maanaam maanaam cinq victoire laa la ci laaj ci douze victoire yi nga am. nee naa la man su ma amee douze victoire cinq rek laa ci bëgg a xam. non booy génn non non non non non non non non. Ah. waaw cinq cinq yi amul amul lu ma ci mën a doon. an kay kan ak kan la Vandam nga fi wax. waaw ak Surumle. waaw ak kàddu gi. kàddu gi moom bëre daan la xaw ma ko la yoo su quoi bëre daan. waaw waaw euh, kan Xaadim Ndiaye non Jolof Xaadim Ndiaye non non. Xaadim Ndiaye Jolof nañ bëre leeru ñu bëre waat. moom defe naa daan na la ñaari. non non yaa ñi ma yàlla fu ma daan ñaari yoon. yaa fu ma daan ñaar fon na ma daan ñaar daan na ma fii Dakar waaye daanu ma fële. Hmm. non non daanu ma fële. ñi la daan ñu kan ak kan. giri da laa daan. non giri bëddoo non giri kan giri bëddoo maa ko daanoon. nii. waaw giri bëddoo waaw. foo daane giri. si giri daan naa ko. arène. yàgg na. ban année. arène yàgg na. xaaral bi muy débuté la. bi muy débuté la. ku tëggoon loolu. <laughs> gis nga booy bi la muy saytaan giri bëddoo mosuma bëri ak moom. Ah. saytaan la. noo booy. looy liggéey yow looy liggéey ak man xeex rek laay liggéey. physique waaw. waaw Lamine ñu entraîné woo. non non Lamine ma dara man su ma entraîné su ma entraîné xamalu ma instant yii dama doon physique. léegi dama seen seen seen xeex bi nga doon xeex démb dégg naa xeex. booy euh, jamaïcain mooy affaire saytaane yi may wax rek léegi affaire xeex bi jamaïcain. waaw waaw ñëwal jamaïcain mu def. saytaan alhamdulilah rabil aalamiina. jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jaram mam Cheikh Rahma Fall Lamp Babul Mouridina laa ilaha illallah gis nga jamaïcain saytaane la booy bi. xaw ma lan la wax booy ba booy bi di ma wax ci suuf di ma wax yooyu te man vraiment c'est xam nga comme ni exemple jama euh, jama kii affaire Modou Lo jéem a indi ndax di wane ay doomu nday Modou Lo la affaire Modou Lo di ko soxla wax ci suuf man de su boobaa ma tàkk nag ñu ne man la te fekk demewul noonu te jama kii moo koy soxla man wulli du ma moromam wulli du ma morom xaalis moo booleeg moom man damay liggéey. MMA Siteu waaw li ñu koy ñaanal yàlla may ko ci ndam ndax mérito na ko xale la te Baay Faal la am na jom am na la te Baye Fall la Siteu mu méritoo noonu la su bëree mu neex su feccee mu neex kon nag su ñëwee di eh, teewal ah, di eh, di kiyal Sénégal réew mi eh, di dem di yi jolante ji beneen dëkk ah dañ ko war a ñaanal. sa gun gundux waaw non dañ ko war a euh, bala nga ñëw si gun gundux gis nga Siteu yàlla ko yàlla jàppale. amiin loolu kañ leer naam amiin Siteu ko euh, waa kaddu Modou Modou nag Iba Kara maa ngi leen di ñëpp. naa yaa yaa ngi waajal ay états-unis fu ne kay. waaw la baax na bu leen bu leen ma catu kaar kaar car macha allah kaar macha may ma tuuti ma gërëm nit ñi nag waa may ma tuuti ma gërëm nit ñi waa waxuma fi dara waxuma fi dara c'est que xam nga benn affaire moom diaspora bi man laay gërëm at waa léegi at ñu nekk fii Sénégal sama maaraay sëñ Cissé mu sëñ Babacar dégg naa wul di ko wax mooy dafa tiit ndax combat bi demoon mu ñaaral ko comprendre nga yàlla may ko ndam léegi nag mu commencé doon ko xarab sëñ Mor Faye waxi nopp mu mu ñaanaloon ko mu dem fa di ko xar te ñooñ samay xarit xam naa leen bu yàgg sëñ Sàmm Nduur sama xarit la xam naa ko bu yàgg combat bi demoon fa ñaanal ko wulli ba mu soo dégloo ba mu bëreeg bi mu ba muy daan ba mu toog palaat nee ko sama kër nga dugg sama kër nga dugg sama kër nga dugg ndax fu ñooñu ko ñaan ñëpp samay xarit la fi mu ne nag ñu ne wala dem foofu ndax xam na ñooñ samay xarit lan euh, sëñ euh, kii nu gasama maa ngi koy ziar bu baax at sëñ xaadim kànji jë gërëm waa jaspara at sama suma maire Aliou Sall Sall ngaari buuru géde lam tooroodo maa ngi koy gërëm di ko sax ay sëñ Modou Sey borom taw féex borom géejaway sama sëriñ boobu sama xarit sëñ Modou Sey taw féex maa ngi koy gërëm di ko sax ngañ ngañ demb coiffeur mag bi doomu nday sëñ Modou Sey borom taw féex maa ngi wax ci monsieur la ma ne xamal la benn maa ngi gërëm ñëpp di gërëm euh, euh, Néné Tall ministre de la jeunesse dëkk géejaway Euh, di gërëm Modou Mbacke baax yaay Couture Moussa Fall Aliou Sall mooy maire kooku mooy sunu meer Aliou Sall mooy sunu maire man nag moom maa ngi dégg muy gërëm yeneen maire waaye man Aliou mooy sunu maire waaw Ahmed Aïdara Guédiawaye la dëkk doomu Guédiawaye la non wax dëgg yàlla jàppale gu ma nag waaye waa jàppale gu ma nag Aliou Sall daal mu ngi may jàppale moom waaw Aliou Sall mi ngi at sama doomu day jéy seen maa ngi koy gërëm di ko sant di gërëm ay soxnaam waaw sa gun gun ndox Guédiawaye gépp jéy ni diaspora bi euh, euh, ma doomu nday lees ah Sénégal mbir xew na xale yi xew ci jamono yëngal làmb yëngal làmb de ah fu làmb àgg tey dox nañ ci ay jéegu tey Bécaye Mbaye su egsi su liggéeyee ci làmb ba egsi fii Alaaji Mansour Mbaye waxi nopp ñoo ñooñoo xale yi daal di ñëw jaar seeni tànk li lan wut waa Leewtoo ak waa Lutte TV lu ñu organisé leen mag si dañuy football ñooy ñoo bokk ndey ak baay Lamine ak Babacar ñoo bokk ndey ak baay kii jaar na nii rek kii jaar ni waaye benn lanu dégg naa dañuy am max bu ñuy waajal seen max ba yàlla na ci yàlla def jàmm waaye xaw ma kuy gañe nag waa Leewtoo ak waa Lutte tii xaw ma kuy gañe waaye max boobu ah du yomb Sénégal yëpp nañ ñëw seetaan ko nag vraiment ndax ñoom liggéey nañ ci làmb képp kuy dundee ci làmb ku bëgg làmb muy supporter na nga ñëw seetaan muy Sacré-Cœur ah Balla Gaye woo ngeen ko da ngeen ko invité Balla non Balla Gaye dina ñëw incha allah rabi ko gérer Balla Gaye ñoom dina ñëw moom ah te que terrain sacré ngeen koy defee waa loolu nice na ci kaw ci kanam rek yéen waaw ndax mérito ngi terrain sacré cœur lay amee max boobu Balla Gaye 2 dina ñëw maay magam dina ñëw waaw yéen ñëpp leen ñëpp leen war a ñëwal ndax vraiment li ngeen liggéey ci làmb dafa rëy waa yéen ci kaw ci kanam daal waa Lutte TV ak waa Leewtoo Babacar Lamine ay ñaari booy yooyu waa ku ci sut ñoom ñaar. Babacar ak Lamine ku sut laa ilaha illallah kooku nekkoon ci théâtre boobu nu mu tudd euh, kii waaju gàtt ja nu mu tudd euh, kii sans misel sans misel xam nga say déggal moo boo moo